mbokk yi ci tàggat yaram la ñuy mujjee ndax ci tàggat yaram nag ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci referees groupe bi mooy mbootaayu referees yi ñoom nag ñoo ne nag nee nañ Gambia Football Federation nag ñu leen ko amel parce que ñoom referees yi nee nañ ñoom ñu nekk ci division 1 ak division 2 bu Gambia ñoom yëpp match si nga xam ne jot nañ koy àtt ci mi nee boobu ba léegi nag seen xaalis nag Gambia Football Federation nag ñu leen ko amel fayuñu leen ko te naxar boobu nag mënuñ koy toogee waat dañ am pour yëgal ko li nga xam nag moom mooy nga xamante ne ñoom ñoo nekk refris yi nekk fii ci biir réewu Gambia mu di members of the refris group ñoom nag gaaral nañ seen kàddu di xamle ne daal fayuñ leen seen xaalis bi nga xamante ne moom lañ leen war a fay gannaaw bi nga xamante ne second round matches yi am ci first division bi ak second division bi ñoom nag refri nañ ko fii ci biir réew mi ñoom refris yi nag ñu ne métti na leen lool gannaaw bi nga xamante ne nii depuis bu ligue bi jeexee fii ci biir réewu Gambia ñoom nag am na xaalis yoo xamante ne nii GFF war nañ leen koo fay waaye benn tey jotuñu ci seen i koppar yooyu euh, li ko waral nag mooy benn tey xaalis bàyyeekoogut ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Gambia Football Federation euh, pour àgg ci ñoom waral na nag kenn ki nga xamante ne ko xarañ la bokk ci referees yi moom nag dafa nëbbu ab turam waxtaan na ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Alkamba Times xamal leen ne Gambia Football Federation nag benn tey fayuñu leen seen xaalis bi nga xamante ne moom lañ leen war a fay ci réew mi mu ne dafa métti lool gannaaw bi nga xamante ne ni ñaari moom moo daal di weesu bu lig si jeexee fii ci biir mi moo xam muy first division bi ak second division bi te nag boo seetee dangay gis ne second round bi ci ñaari division yooyu noonu yëpp moo xam muy góor yi ak jigéen yi ñëpp euh, officier nañ ko ñoom refris yi waaye benn tey seen xaalis yooyu munaguñ see jot fii ci biir réew mi te métier mi nag dafa nekk métier moo xamante ne ni ñu bari ci refris yi moom lañ yaakaar pour dundal seeni njaboot yi mu ne nag lii moo waral dañ leen war a respect ndaxte li nga xamante ne mooy métier mi dafa important lool eh, te nag du am benn jongante bu am solo boo xamante dina am ci wàllu football bu fekkee ne amuñ ay référence yi nga xamante rek ñoom ñooy officier jongante boobu waaye nag mu ne euh, refris yi nag ñoom lañ dee sacrifice saa yu ne ndaxte mu ne bu lu métti ñëwee daal nañ xam ne refris yi ñoom ñoo ko dee dékku fii ci biir réew mi ndax mu ne refris yi seen liggéey yombut ndaxte ñi nga xamante ne ñooy players yi coaches yi ak supporters yi yëpp dafa am kàddu yu ñaaw yoo xamante dañ ko dee jël di ko àggee refris yi fii ci biir réew mi waaye nag refris yi dafa mel ni benn tey fulaluñ seen liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def ci biir réew mi ci kaw nag muy continuer di xam ne lii ci boppam sax moo waral ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fédération bi war a yëkkati seen xaalis bi ñu leen yoreel ñu daal di leen ko fay ci réew mi Mr Baboucar Camara mi nga xamante rek moom mu nga foofale ca Gambia Football Federation nekk seen director of communication moom tamit euh, waxtaan na ak Alkamba Times xamal leen ne dëgg la referee li ñuy wax ci biir réew mi lu am la ndaxte second round bi ci euh, division euh, leagues yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci biir muy first division bi ak second division bi feeguñ leen ko ci atum 2021 ba 2022 season bi. waaye nag mu ne eh, warugalu fédération bi la pour ñu daal di yëkkati xaalis yooyu daal di ko fay ndaxte fédération bi ñoom ñoo responsible li nga xamante ne mooy FES ak seconde division si nekk fii ci biir réew mi waaye nag mu ne boo seetee dangay gis ne daal eh, GFF amul benn sponsor boo xamante ne nii am nañ ko te loolu doon na loo xamante ne nii njàqare bu rëy la ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite fédération bi ndax mu ne même chairman of the referees association bi bokk na ci executive members yu Gambia Football Federation te moom sax waxtaan ak moom ci lu aju ci wàllu problème bi nga xamante ne ni moom moo am aju ci wàllu refri yi waaye nag mu ne lu si gën a am solo mooy ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ah, pour fay li nga xamante ne moom moo nekk xaalis yooyu te nag jéego yi nga xamante ne moom lañ si jël tàmbali nañ ko ci biir réew mi moom Babacar Camara nag dëggal na ne daal eh, GFF first division ak second division referees yi eh, ñoom benn tey xaalis yi nga xamante ne moom lañ leen ameel ci second round bi feeguñ leen ko ci réew mi. referees yi boobu dëgg la feeguñ referees yi Euh, second round bi waaye dinaa la wan ne GFF bi ñoo since 2014 bi ñu jëlee mosu ñoo ameel refari daf dee dilee waaye dañ leen dee fay te suñu leen fayee dañoo kontaan ñoom ñëpp xam nañ ko bu tuut xam nga waxoon na la ci interview ne ñun amoon na time ñun play nañ fi ñaar ñetti ligue yoo xam ne fayuñu waaye since Kaba mu ñëwee ba léegi mosu ñoo ameel refari any time bu mu amee diléance sax dañ leen dee fay te dinaa ci teg leena ne du refri si rek la assessor yi seen fa first division seen xaalis fa because uh, man ni ma ko déggee ay second division lañ ameel ñëpp lañ ameel man mii sax suma xaalis sanga fa second division ak assessor yi so loolu mu leer dafa bëgg loolu mu leer because ñi ñi dañoo binda ne second division rek lañ ameel ñëpp lañ amee xaalis waaye xaalis bi mu ci process comme ni ma la ko waxee woon last time te buñ ko feyee xëy na dinaa la xoolaat ne la xaalis bi fay nañ ko te dinaa la dénku ne ci fan yu problème yi xëy na banque ak yooyu daf lay am yenn yoo xam ne doo ko mun a wax waaye am nga ñu xamul rek foo dem ci àddina am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir dañoo bugg a yaaxa fu ñu gis lu dox referee bi soo ko bàyyee xel boobu ba léegi dafa dox. Seydou Camara Star TV News.